salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yu mu tëral nu ngi sant yàlla te di bég ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub xam ngeen ne bi àpp bi yàlla tëraloon mate feeñal na yeesu musalkat bi ni mu ko digee woon waaye maam ya daaj nañu ko ci bant ba mu dee wante yàlla dekkal na ko ca ñetteelu fan ba yéega ko ci asamaan ni ko yonent yëgle woon nettalib dundu yeesu weesu na bàmmeel ba dafa wey ba ci ni muy jógewaate asamaan jël si ñi ko gëm fii ci àddina kàddug yàlla dafa am bopp am genn loolu moo tax tey ci mbirum dellu si yeesu lanu fas yéene jàng mbokki déglukat yi ña jamono waaleeg yeesu amoon na ci ñu ko bañoon a gëm naka tey itam am na ñu ko bañ a gëm ñu dem sax bay wedd ne dina dellusi ñi naan ah loolu waxi kese la waay ñenn ñi naan kiy ñëw ci mujjug jamono dafay jël soxna bu boobaa am ñeneen nag ñu naan dootul ñëw bu doon ñëw dikk na bu yàgg mbokk yi ñuy déglu lu wér lu ñu tibbe ci kàddu yàlla moo di yeesu ci boppam mooy kiy ñëw du keneen waxoon naka sax bi mu naan su ma leen defarale bërëb ba dinaa dellu si jël leen ba fu ma nekk ngeen nekk fa yéen itam te bi mu dekkee di feeñu ay taalibeem lu mat ñeent fukki fan bés dajale na leen tàggu leen di yéeg dellu asamaan fa mu jóge woon noonu taalibe taxaw ne jàkk asamaan di xool booba ñaari malaaka ne seef taxaw ci seen wet ne leen yéen waa galile lu tax ngeen taxaw di xool asamaan si yéesu male ñu jële ci seen biir yéega ko asamaan dina dellusi ci ni ngeen ko gisee muy dem asamaan naka ñi yaakaar ne bu musalkat bi dellusee dafay takk soxna dañu dese dégg ne loolu misaal la ci diggante bi musalkat bi am ak mbooloom ñi ko gëm kàddug yàlla dafa ne dama leen di fiire ak fiiraange gu jóge ca yàlla ndaxte dama leen bëgg a jébbal jenn jëkkër képp muy Christ ngeen set ni janq lii nag mbootum yàlla la moo taxoon ndawu yàlla li di Pool waxoon waa Efes ne loolu ëmb na mbóot mu xóot man maa ngi wax ci lu jëm ci Christ ak mbooloo mi li nu war a dégg ci loolu mooy ne Christ yéesu ci boppam moo di dellusi te bu dellusee dina jël mbooloom ñi gëm Christ mi ñu misaal nib seet noonu kàddug yàlla nee na nanu bég te bànneexu te jox ko ndam li ndaxte ceetu mbote mi agsi na seet bi waaj na yéen ñi ñu woo ci réeri ceetu mbote mi barkel ngeen kàddu yi ñooy kàddug yàlla di kàddu yi dëggu ñenn ñiy wax ne yéesu du ñëwati bu doon ñëw ñëw na bu yàgg dañu war a xam ne borom bi kuy sàmm kóllëre la lu mu dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit moo tax kàddug yàlla ne bu leen umple ne benn bés ak junni at ñoo yam fi borom bi li yàlla diga dina ko def xanaa kay da leen muñal ndax bëggul kenn alku waaye ñépp tuub seeni bàkkaar xarit yi ñuy déglu ndaw borom bi tudd yowaana bind na ci saar wu jëkk ci téere peeñu bi ne man yowaana maa leen di bind na yiw ak jàmm féete ci yéen jóge ci yàlla moom ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg na ndam li ak nguur gi féete ak Yeesu Kirist ba faw moom mi nu bëgg te yeewinu ci sunuy bàkkaar ak deretam ji tuuru te def nu ay buur nuy jege yàlla baayam di ko jaamu amen gis leen mu ngi ñëw ci niir yi te ñépp dinañu teg seeni bët ci moom ba ci ñi ko jam sax te xeet yi nekk ci kaw suuf yépp dinañu jooy ndax moom waaw amiin borom bi nee na man yàlla may alfa ak omega may ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg man aji kàttan ji yéen ñiy déglu wax leen ma kan ngeen yaakaar ne moom la kàddug yàlla di wax foofu ne mu ngi ñëw yeesu lay wax leer na naññ ki yéegoon kay moo mën a wàcc du keneen ana kan lañu jamoon ci wet ku dul yeesu moom mooy dellusi lijjanti àddina si xam ngeen fii àddina si toll dafa soxla ku ko lijjanti xare yi duñ jeex réew ak réew nit ak nit yëngu-yënguy suuf yi ak yeneeni musiba ak jëye yu nit mënul dara gën nañoo takkarnaase ay junniy junni nit di ca faatoo saa su nekk bés bu nekk nit am njàqare ci luy xew ëllëg ba tax na mënuñoo ñàkk xalaat moo waaw àddina day bëgg tukkeem waaye nit ak xam-xamam bu rëy lot na ci xam mbaa nànd xalaati yàlla kenn xamul kañ la àddina di tukki waaye nag yéesu joxe woon na màndarga yi firndeel mu jug jamono loolu lépp nag ñu ngi koy gis tey jii te dafay wone rek ne léegi yéesu dellu si bi ko taalibeem ya laajee kañ lay dellu si yeesu dafa leen ne woon dingeen dégg ay xare ak coowi xare wattu leen bu leen ci tiit ndaxte loolu war na am xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew xeex ak meneen réew dina am ay xiif ak ay yëngu-yënguy suuf ci bërëb yu bare waaye loolu lépp mooy ndoorteel metit yi mel ni jigéen juy matu bu loolu amee mujjug jamono jot kon foofu lanu sukkandikoo ngir wax ne noo ngi ci mujjug jamono mbokk déglukat yi li wér mooy àddina ay doxandéem rekk lanu fi xam ngeen ko doxandeem nag moom fexe samp ci réewum jàmbur waru ko bu ko jéemee bés dina ko réccu lenn ci li tax yéesu yéegoon asamaan gannaaw ndekkite mooy defaral ñi ko gëm seen kër dëgg te su leen defarale bërëb boobu ba noppi dina dellusi si leen ba fu mu nekk ñu nekk fa ak moom kon nag yeewu leen kàddug yàlla nee na xam ngeen bu baax jamono ji ñu toll jamono yeewu jot na ndax léegi sunu mucc gën naa jege ca banu dooree gëm guddi gi màggat na bët a ngi bëgg set nanu bàyyi nag jëf yu lëndëm te ràngoo gànnaay yi nu yàlla jox ngir dund ci leer gi gannaaw nu ci leer gi na sunu dund rafet bu nu naan sàngara bay màndi tey bànneexu bu nu njaaloo tey defi ñaawteef ak sunuy cër bu nu xuloo mbaa nuy ñeewante waaye gànnaayoo leen kirist borom bi te bañ a topp seen bakkan ci bëgg-bëggam yu bon ci lu wér dellusik borom bi gën naa jege dafa jamp sax te noonu sunu mucc ci coono yi àddina ëmb yépp gënati naa jege feebar fitna yi noon ñàkk nattu yeeg ñoom seen loolu lépp léegi dootul am ndaxte bu borom bi dellusee dina soppi sunu yaram wii ba mu mel ni bosam bi mu dekkee bu boobaa des na defal xoli ñépp ñi gëm yeesu moo tax sunum xel dal ndaxte yàlla moonu digal nuy séentu bés bu tedd bi nu yaakaar maanaam yàlla ju màgg ji di musalkat bi Yeesu Kirist feeñ ci biir ndam te moom lañuy séentu bàyyil xel ci ne bu guddi màggatee jant bu fenk ciy topp kiy fenkal jant bi léegi mu agsi te mooy yéesu waaye ndax bu boobaa dina la fekk nga jekk nekk ci leer gi kàddug yàlla nee na nanu bàyyi nag jëf yu lëndëm te ràngoo ngànnaay yi nu yàlla jox ngir dund ci leer gi gannaaw nu ngi ci leer gi kon ak koo mën a doon bu fekkee sax danga bon ba foog ne yàlla soxalatuloo ko bul ñàkk yaakaar xamal ne yàlla bëgg na la ba tey te joxe na yéesu ngir musal la mën nga dellu ci yàlla jaare ko ci deretu yéesu ji tuuru ngir yow te dinga nekk ci leer gi li të nit tëwul yàlla kon yow mi déglu gisal nga sa bopp ne ñi bañ a nangu yéesu amuñu jenn yaakaar ci kanamu dee bu ñuy xalaat dee sax seen xol dafay tiis ñuy ragal ndaxte xamuñu lañuy fekki ñi gëm yeesu ñoom xam nañu lañuy fekki te loolu du deñ ki leen warlul àjjana kenn du jële dara lu mu moom ci loxoom moo waral taalibe kirist yi am kóolute gu tax ñu naan dara ak kenn mënu leen tàggale ak mbégalu kirist du ay nattu te du njàqare du it fitna du xiif wala rafle du it ay ngaañ walla jaasi sax ndax wóor na leen ne dara mënu leen tàggale ak mbëggeelam du dee du dund du malaaka yi du seeni kilifa du tey du ëllëg du borom doole yi du li ci kaw mbaa li ci suuf mbaa leneen lu ñu bind daara daara mënu leen tàggale mukk ak mbëggeel gi leen yàlla jox ci kirist yéesu seen borom ndax bëgg nga am kóolute gu mel kirist rekk mën a joxe kóolute googu amul keneen ndax moom rekk a dee ngir musal nit ñi te jubale leen ak yàlla xam nga yàlla dafa sel ba dara lu sellul mënu koo jege te nit dafa taq bàkkaar waaye yàlla jox na la pexem tàggoog bàkkaar bi dox seen diggante mooy pexem deretu yéesu kirist ji tuuru ca bant ba kon lépp sotti na waratuloo def dara di ca yaakaar mucc yàlla def na lépp bi mu jebalee yéesu mu dee gëm ko rekk a ci des noonu dinga tàbbi ajana ni ko kàddu yàlla waxe kon yow itam mën nga am kóolute gi taalibe yeesu yi am ci ëllëg ci kaw nga gëm kirist yéesu moom rekk way gëm kirist yi seen ngëm gi ñu wékk ci saraxu yéesu moo tax ñu am xel mu dal te lenn rekk yitteel leen ci biir rëj-rëji àddina su nax si dañuy def seen xel ci feeñuk borom bi fu ñu tollu di séentu bés bu tedd bi ñu yaakaar kon ak lu mën a xew lenn rekk moo nuy soxal lenn rekk lanuy xaar dellu seg yeesu moo tax nuy moytu àddina jiital nu ba nu fàtte ne mbir mi jamp na moom la taalibe yeesu yu wér yi daan def di bëre ba upp làmbu ngëm daw ba àkk te noonu yàllaa ngi leen di xaare añu ñu jub di kaalak ndam gi leen borom bi jox ca bés ba ñoom ak képp ku def seen xol ci dellusi borom bi ñi gëm yeesu ci kàttanu xel mu sell mi lañuy bëree du ci seen dooley bopp ndaxte amuñu jenn doole ak kàttan ci seen bopp yàllaa leen di kàttanal ba ñu mën lépp moo tax lu mu yàgg-yàgg duñu xàddi xam nañu ne li borom bi dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit kon yow miy déglu fàttalikul la malaaka ya waxoon waa galilée ne leen yeesu male ñu jële ci seen biir yéege ko asamaan dina dellusi ci àddina ni ngeen ko gisee muy dem asamaan kon nag bala booba defarul ba jekk ni ngay defaroo nag mooy nga xam ne tey jii la bésu mucc bi nga xam it ne muñuk yàlla yiw la ci yow te ëllëg wóorul ndaxte muñug yàlla am na fu mu yem ci àddina si rek nga mën a amee ngëm ci saraxu almasi bi yeesu loolu képp moo la mën a tax mucc ci safara su dul fay mukk si xaar ñépp ñi weddi kon xarit yu ñuy déglu fii lañuy yem ak yéen tey di leen jox dox daje ba beneen yoon fii ci seen émission yoonu njub su ngeen amee laaj ci li ñu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddu yàlla wax ci dellu si Yeesu ne bu boobaa ndigalu jàmp dina jib baatu kilifa ci malaaka yi dégtu liitu yàlla jolli te borom bi moom ci boppam dina wàcce ca asamaan